jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar fu waay nekk rek si réew mi ak si bitim réew tey nag ñoo ngi fii CNG de lutte fekk fi promoteurs yi ñu amaloon réunion ak ki nga xam mooy suñu kilifa Bira Sène xamuñu nag réunion boobu lañ moo ko wundu waaye kenn ci ñoom rek dañ leen di nuyu rek bàyyi leen ñu nuyoo mbokk internet yi bu ko defee ñu informé wu xam ba xam lan moo leen fi andi woon maa ngi fekk Aline Gueye yaakaar naa ne ñi fi teew tey bëri na Ibulaay production Jam production ak ki nga xamante ne macha allah mi ngi doxal wàllam ci lit simple bi bu baax a baax a baax ak Jandeer production ak Fallou Ndiaye bëri na Jufi production ñoom ñëpp ñu ngi fi dañuy nuyu Guèye rek bàyyi ko mu mbokk internet yi ñu jublu ci waxtaan tey moom daa sañ xam naa ne nag est-ce que rayul xaar sax doo ko ñëw maa baax a baax di la bëgg waaw moo danta maa ngi lay ziar bu baax a baax di nuyu internet yëpp di leen eh, ñaanal jàmm si ajuma ji ñu nekk mm. mais di remercier pour sama mbokk promoteurs yëpp ma àndal mm. ñu ñëw fii tey eh, ak rencontre bi ñu am ak CNG mm. di waa CNG rencontre bi ñu am nag tey ak eh, CNG dañoo gis ni état bi day toog ba mu nekk rek mu daal di kii làmb ni làmb dootul am anule ay làmb jàmbur te promoteur ba dafay dem euh, investir alalam si journée nga toog ba ñu naan suba la ak gannaaw suba la ñu jóge fa rek ne làmb amatul sans ñu notifier la kayit sans dara CNG sax du ko yëg dañuy jekk baag rek ca kaw la jóge ca kaw la jóge yooyu la promoteur yi wax nag mënutuñ ci ànd mm-hmm. loolu mënatul nekk c'est fini léegi nag sur point yooyu lañ doon ñëw doon si waxtaan ak CNG. ak euh, beneen point bi nga xam ne mooy subvention bi nga xam ne état bi da ko waxoon da koy defal promoteur yi. ci yooyu aussi ñu ñëw waxtaan si ak CNG ban modalité la ñuy doxee yooyu. Mhm. loolu daal moom ak euh, mbër yi nga xam ne salaamaaleykum ñu dem génneel la léegi certificat médical ñu ne dañoo feebar dañoo gaañu. promoteur ba aussi toujours moom rek mooy dee. si mm. yooyu lañ doon waxtaanee daal xool bu baax solution yi nga xam ne daal. Mm-hmm. moom lañ si indi. Mm-hmm. ba ñu ñëwee nag fekk nañ fi ñi nga xam ne vraiment ñoom it fekkoon na leen si ndeysaan ñu waa CNG ñuy xalaat ci lu demee noonu. si mm-hmm. euh, annulation journée yi ak yooyu. mais ñun promoteur nag dañoo bëgg soo annulé tey journée jaamur. Mm. bu jamee yi kay tëggee nga annulé journée am non mm. da nga koy dédommagé. parce que dafa jël alalam investir ko si nga toog ba mu neex la tëdd say climatiseur tëdd. ñëw ne léegi làmb dootul am au moment boo nee làmb dootul am football mi ngi am mm-hmm. euh, yenn sport yëpp ñi ngi am mm-hmm. léegi pour fan lañ teg ni làmb doot du am mm-hmm. amuñu ko xooluñu sax ni waa lu mu investir nii la walla naa la ñoom daal euh, toogal sa climatiseur rek commencé annuler ay làmb loolu nag lañ bëgg mu jeex fi te loolu moom ñuy café du lu ñuy du lu ñuy lenn bi daa bëri jamono yële si ginnaaw gis ngeen Iba Mar noonu la woon ñu toog ba mu neex la rek ñu acca eh, làmb amatul xale yi perte seen xaalis ñenn ñi banque lañ demoon leb xaalis mm-hmm. ba tey ñi nga am ay problème ñi ngi leen di topp di leen poñe nan leen indi leen xaalis bi indi leen xaalis bi ci mm-hmm. xaalis bi nga xam ne lekkoo ko defoo ko dara da nga toog ba seeg rek acca mm-hmm. état jóge fële rek ne la làmb amatul te xam nga cas force majeure buñ ñu wax loolu parce que ñun xam nañ cas force majeure lan la dàqu ñu ñoo jàng gënuñu ñoo xam li li xew cas force majeure suy am ñun xam nañ nañ lañ koy déterminer mais li nga xam ne ñaa ah, ah, problème mu ñaari nit la ak ñetti nit la nañ leen ko régleel ci seen biir mais mënuñu ko jël lépp sëf ko làmb mm-hmm. ni làmb dooni làmb moom moo tax violence bi am fi dooni làmb lii moom moo tax moo tax yàlla weer leen mm-hmm. football bi gis ngeen jaraaf football na fi ak Pikine gis ngeen nu mu demee mm-hmm. adduna bi gis nañ ko te loolu du làmb du dara su doon làmb kon ba léegi xanaa dañu tëj làmb nañ dindi complexe bi nekk ci ñun toujours moo ko sénégalais il faut mu dindi complexe ñun làmb la ñu am dañ bàyyi nit ñi dafa am ñi nga xam ni dimanche làmb moo leen di dundal nañ leen di bàyyi ñuy dem di seetaani làmb problème yi ñuy wax si réew mi yëpp bu ñu bàyyi woon làmb ji dem kon nit ñi fàtte nañ ko. am na solo ñaari point yooyu nga yi xam ne moo leen fi tax a ñëw tey ban moo ci gën a avancé. pour problème ma xam nga lu ñu metti la ñu ñëw di ko wax di wut solution léegi am na yeneen rencontre yi nga xam ne dañ ko war a dajawaat ak CNG. si yooyu parce que lii moom duñ ko bàyyi mënuñu ko bàyyi mu nga xam ne rek dafay naax saay noonu mhm. état bi loolu moom force la mhm. état bi dafa war a dédommager promoteurs yi nga xam ne waroon nañ fi tey boo annulé sept journées cent quarante huit heures ñi nga xam ne mais affaire bi yemul ci promoteur rek boo xoolee mbër ma nga ma nga annulé combat mbër ma fu mu jëm yow mbër mi tey bala moo bëre adduna bi yëpp dina fa jaar ket pour mu bëree mhm. lu nekk ku koy dimbale jamay kee dimbale ko Modou Anta ku mu dëkkal koñ ba ñoom ñëpp ju dimbale ko ba journée ñëw nga annulé ko de est-ce que boo ko day retourné waat demaat si ñooñu ñooñu ñooñu war ko jàppale waat. mënul mhm. nekk. Mhm. donc bala ñuy defati lu mel nii nañu laaj te lii lépp man lu ko indil mooy ñàkk ministre sport. il faut il faut état bi xam ni dafa war a am ministre des sports premier ministre mënul cumuler ay ministre des sports lu nekk mu bëgg ko cumuler. Mhm. lamb dafa yaatu ginnaaw. mooy c'est pas pour rien que chaque dimanche nga ñëw fii. arène bi fees jàll. sport yi fi am yëpp lamb rek moom mooy mel noonu loolu nag war nañ ko gën jox cër. te ñun loolu lañu am bu ñu ko joxee cër loolu la ñu am ko ñàkkalee fayda ñun loolu la am donc nañu xoolaat bu baax li def si côté boobu. Euh, beneen bi moom nag mbëri coono bi ñuy teg si certificat médical looloo il faut mu arrêté proposé nañu CNG ni ko léegi au lieu que yow mbër mi tey boo gaañotee ngay dem di seeti benn médecin di gisee ak moom. Mm. no loolu dootul am na ñëw directement CNG. CNG indi wo xool médecin médecin bi ñëw xool la soo gaañoo ñu xam soo gaañool ñu xam. da ngeen a remarqué ne ay tapale def si am. mais lépp ay tapale la nga parce que nag yow da ngay toog balaa làmb ji commencé la diw dina la indil certificat médical làmb ji du am nga dem ba làmb ji des ay 5 jours 6 jours même chose am te yéen ñëpp li may wax nii yëpp ñëpp xam ngeen si dara muy journaliste ak amateur ak nañ si dara da ngay toog ba saa la sa jour làmb du am nga ne lu tax du la diw dina la indil certificat médical diw du bëre effectivement noonu lay demee loolu noog mooy lan il faut ñu xoolaat bu baax loolu nag la ñuy wax seen si heureusement que ñuy ñëw di wax ak ñoom sax ñoom ñi ngi si woon léegi nag am na nga xam ne CNG mënu ko parce que état aussi boo ñëwee nga dénk lu mel ne CNG nga ñëw dénk ko làmb ci làmb du ay caaxaan li bootu ci ginnaawam dafa bare boo ko dénkee booy annulé avant ngay annulé na nga ñëw laaj ko waxtaan ak ñoom laaj leen ñoom bu boobaa dinañ la ah non premier ministre bul annulé lool parce que bis boo ko annulé. Mm-hmm. xale yi dinañ perte lii dinañ perte lii dinañ def lii conséquences yi lii ak lii ak lii la. wala bu dee mën nga leen dédommager nangam nangam mais toog sa sa mu sedd rek nga ne acca lii du am loolu nag moom la ñu wax ne di jeex na fi ñun nag tojuñu la demuñu marche defuñu yàquñu defuñu lenn président recevoir na fii axlu làmb gis ngeen coow lafa am ku nekk nag recevoir na la amul benn coow mais waa làmb rek la recevoir coow li commencé jàppal bàyyi kërëb kërëb së loolu rek moom moo lay wan ni làmb ginnaaw gi yaatu na làmb du affaire caaxaan parce que li mu rëy moom moo tax Euh, beneen bi moom mooy euh, euh, def naa suñu deuxième point mooy subvention yi. si côté subvention bi aussi waxtaan nañ si bu baax ak CNG. léegi ñun dañu war dem promoteur yi ñu ñoom am na lu ñu proposé mais mënugul génn comme loolu pro ay proposition te am na li nga xam ne ñun ànd nañ si ak li nga xam ni xëy na war nañ ko xoolaat ak ñoom waxtaan ak ñoom loo tax dañuy dem waxtaan suñu biir suñu waxtaanee suñu biir ba pare daal dañu waat proposé leen parce que njariñu làmb la bu ngeen xoolee nag kii tey. promoteurs yi fi nekk. ëpp nañu lii junni yoon. voilà foofu laa bëgg nañu parce que. Euh, ah, ah, ah. nga euh, lii du association. du suñu association rek moom moo ñëw ñun làmb la ñuy défendre intérêt làmb la ñuy défendre du ma Samba du ma Demba ku fi ñëw sa intérêt lañ lay défendral boo toogee sa kër ñu ngi lay défendral sa intérêt. donc yeneen promoteurs yi nga xam ne dañuy réunion fii di réunion intérêt làmb ñu toog seen kër defoon naan clan bii laa bokk ak clan bi làmb dépassé na foofu lamb amatul ay clan ak ay nangam. intérêt ñëpp la ñuy def donc ñoom ñëpp nañuy ñëw bu ñu ñëwee ñu daal di toog waxtaan xool nan la làmb di demee mais tey fii ak ñi nga toog seen kër ku nekk di jaay ay man sama kuréel du dem ak ay sama kuréel dem. lii xeebel la indi kenn kenn kenn du respecté kenn ci làmb ji. ma la déggee dafa ni dafa mel ni. Mm. problème dafa am. Mm. parce que lii taxaw fii kese du promoteur yi nekk si làmb ji. Mm. bari na promoteur yu fi nekk aussi te yaakaar naa ne état ba muy woote am na ñu ñëw am na ñu ñëwul xaalis génn na nag intérêt yëpp taxaw. Mm-hmm. tey ñu gis ñoo xamante bi nii ban nga jee tëgg mat na deux ans ay promoteur lañ am nañ licence am na ñu ñëw di bootse pour maanaam parce que xaalis bi moo taxaw lan mooy problème bi ak promoteurs yi lan mooy seen problème ba tey instant yi nii tey ñaari kuréel ñetti kuréel da ciy am te bu intérêt personnel taxawee rek ñëpp jógandoo. ñu xoolal problème bi. Ah en tout cas ñun ñi fi nekk nii. Hmm. amul kenn ku fi taxaw nga xam ne sa intérêt moomu la yëkkati. tey boo toogoon ñoom ñëpp koo ci déglu kàddoom intérêt làmb ñun affaire làmb la ñuy wax. waxuñu ay affaire ma Samba ak ay kuréelu ma Demba ay yooyu yëpp intéressé wuñu la preuve en est que gis nga suñu réunion bi jiitu lii. avant tey ñëpp la ñu woo amul kuréel gu ñu woowul ku ñu xam ne daal yaa ngi jëngu jëngu ci làmb wax nañ la ne ah ñun promoteurs yi kat dañoo bëgg ñu daje waxtaan suñu biir xool lan mooy doxal làmb ku ñëw baax na ku ñëwul ku ñëw ñun ñoo ngi ci ku ñu ci fekk baax na ku ñu ci fekkul baax na de toute ñun waxuñu pour suñu bopp rek. li ñuy wax daal luy avancé loolu lamb la liy jëmee làmb kanam moom moo ñu fi indi donc nag euh, Sénégal nag noonu la toujours nii la dafa am ñi nga xam ne ñooy nekk au devant de la scène il faut mbir commencé ko bu demee ba nga xam ne nag njariñ mi ngi commencé génn ku nekk daw di ñëw loolu moom yàgg nañ ko si Sénégal te loolu si du làmb rek la si lépp lay continuer lépp noonu la mel CNG ñoo la gën a xam loolu parce que xoolal suñu daje bi passé lu gën a gaaw ba ñu dajee nii di waxtaan ñun intérêt lamb rek lañ doon waxtaan waxtaanuñu fa leneen li nga xam ne kiiwul mais am na ñeneen ñi nga xam ne rocceeku dañuy ñëw CNG di ko kuréel gëlëkat dañoo daje fële di xas CNG te amul lenn luñ fa wax li nga xam ne mooy mais CNG nag ay nit lañu yàgg nañu jiite ay nit xam nañ bu baax ba bañ leen ko waxee déglu nañ leen bañ pare mais xam nañu kii lu muy wax diviser ay doomu aadama moo koy tax a yëkkati il faut naafeq yooyu nag ñu affaire naafeq yooyu ñu bàyyi ko dañ lay woo ni la ñëwal ñu doxal affaire lamb nga daal di wax se wax ju rafet ni dañuy acca acca dinaa ñëw ba ñëpp toog ñiy xaar nga daal di toog sa koy yëkkati sa téléphone di woo ay nit naan leen ay bu leen dem ci kuréel ga parce que nii ak naa kuréel gii lenn dong la am na nga xam ni bokkuñu association ñi nga fi gis nii kii dafa bokk kuréel gii kii bokk kuréel gii kii bokk kuréel gii ñun lamb la ñuy défendre intérêt lamb moo ñu tax jóg muy man Alioune Ngueye ak keneen ku mu mënti doon man du ma fekke fu ñuy tuutale ma sàmba wala ma Demba tey duma toog si mukk mukk si kuréel gii ñu naan ay kuréel gee nee ak di leen wàññi bokk loolu boo ko defee nii yaa ngi minimiser sa bopp xeeb sa bopp la te ñun mag ñoo mag loolu. am na solo voilà am na solo yaakaar naa dañuy gàttal rek yaakaar naa yaa teewal promoteur li simple sum production la wala. maa lay nuyu bu baax a baax di la siyaar la grand. atia maa ngi leen di fay bu baax. Mm. Euh, di rafetlu aussi seen présence fii. Mm-hmm. macha allah mu doon ndaje boo xamante ni rafetlu nañ ko lool. Mm-hmm. doon rencontré CNG bi. lépp mm-hmm. nag euh, ñu tënkoon ko rek ci intérêt làmb. Euh, yaakaar naa doyen bi wax na wax ji yëpp mm-hmm. première point bi nekkoon na ci loo xamante ne da ngay xeexee rek ñu annulé sa journée ci loo xamante ne mm-hmm. xamoo fan la soqee ko macha allah muy doon loo day métti ci ñun lool loolu exemple bi dama ko jëli ayoor exemple ci man mi waroon a tëgg euh, le dix huit mm-hmm. toog a toog ba jeudi ñu woo la ne la kay jël xaalis bi lambu dootul amati te yaakaar naa mise ñu may delloo mm. moo gën a ndaw ci samay finance dépensé ci énormément pour mun a jaay sa lamb toog a toog ba benn takkusaan rek ñu wane ne lamb amatul nga yem ci noonu noonu noonu noonu noonu. macha allah lamb dépassé na jamono yooyu. Mhm. te gis nga niñ ma laajee xaalis bi pour mu mun a ñëw avant événement bi. joxe ko mhm. loolu c'était pour sauver xaalisu mbër yi mais man ana man fan laa war a weeru mhm. fan. damay perte noonu rek mu jeex takk. ñoom dañuy xalaat ay nit lañ. Hmm. ni ñuy xalaatee nag ba mun a protéger mbër mi. Hmm. nañ gëstuwaat nag promoteur bi. loolu il est temps lamb gëstuwaat loolu. te dafa bëri fu ñu toll nii. deuxième point bi nekkoon euh, problème mu comment dirais-je hmm. subvention yi. foofu aussi mënatuma fee wax lu ëpp li Aline wax. déglu nañ leen am na proposition yi ñu jox ne nañ ko partager waxtaan suñu biir. après waxtaan boobu na xam naa fu ñu toll rek dinañ ko mën a siwal ba ñëpp jot ci allah. am na solo yaakaar naa ne Jandeer production ma pare nag non Ndiaye Ndiaye moom mënta ñàkk non Ndiaye moom dina wax Jandeer. waaw yaakaar naa ne yaa ngi tëgg mois de juillet. waaw combat neex diggante Jam Thierry ak Ahmed Dem mhm. ak Modou Anta ak Aline Sey numéro 2 combat yu neex daal baaba Jaxal Caatu Ngéwél. tey tamit ñëwoon ngeen waxtaan ak CNG bi dañ lay nuyu rek bàyyi la nga nuyoo mbokk internet yi. mbokk internet yëpp leen ziar bu baax leen jaajëfal mm-hmm. di jaajëfal suñu naataango promoteur ñu fi taseel tey mm-hmm. doon rencontre CNG bi waxtaan nañu bu baax macha allah daanaka li ëpp si waxtaan bi yëpp liñ si war a développé yëpp Aliou Ngueye développé na ko mm-hmm. euh, ñun daal ñu bees lañu xam nga rek dañoo ñëw fépp fu ñu woo dinañ fa ànd ak ñoom ñu góorgóorlu benn lenn rek laay ñaax promoteur yi mm. mooy lii du intérêt mm. falu Ndiaye wala intérêt al Gueye yi intérêt promoteur yëpp la ñu bàyyi seen xel si affaire clan yi ñuy def ay groupe bi groupe bi groupe bi parce que tey jii li dal Ibulaay tey suba mun na dal keneen mm. ginnaaw suba mun na dal keneen kon nag nañu booloo nekk benn ñu xeexandoo suñu intérêt ñun ñëpp dal loolu moo ci gën a am solo di ñaan yàlla nag yàlla boolee ñu ba bépp luy intérêt promoteur ci CNG bi rek mm. promoteur yi gagné intérêt boobu daal mm-hmm. waaw loolu daal moo doon kàddu yi mm. alingéey wax na lépp mm. ñu ngi seen ginnaaw xam nga ñun dañoo bees dañuy jàng rek ñu ngi seen ginnaaw yàlla yàlla defal ñu jàmm ñun ñëpp daal jërë ngeen jëf am na solo Jamaïcain kaay mais mënta ñàkk numéro un ñu ngi lay fay bu baax mu danta di am mbégte tey ci teewaay bi. vraiment di féliciter promoteurs yi nga xam ne teew nañ fi ñëpp. di leen wax ne kontaan nañu te it bëgg nañ di nuyu tamit. équipe bu CNG Bira seen jiite. muy équipe boo xam ne vraiment oyof nañu tey dal dalal nañu. mu nga waxtaan ak ñun ci li nga xam te ne nii mooy suñuy jafe-jafe. ndax jafe-jafe moo ñu fi indi waaye bu jafe-jafe mën nañoo toog suñu coin. am na solo yaakaar naa ne ci ñi sës ci nga bokkoon. muy le 10 ak le 11. Mhm. li ma lay laaj rek kan la ñuy reprendre làmb yi parce que xale yi ñu ngi toog liñ amoon yëpp dugal nañ ko ci seen ay combat mhm. lépp nañ dugal ci jaay nañ seen i dugal nañ ci tegg nañ seen i natt dugal ci. Mhm. yéen aussi tamit ngeen dem fay ci télé yeeg ci site yi def seen promotion toog di xaar dara amul. kan la ñuy xaar pour làmb reprendre. waaw xam nga Mourante boo xoolee ci Grand Aline Gueye rek da xam ne lii du affaire entrain. ndax actuellement amul journée. Mhm, waaw journée am jeex na. Mhm. déwén lay tëggaat. macha allah te pourtant day yëpp pour ñëw. accompagner mhm. assister. Jandé production bokkul ci benn association. Ibulaay c' est la même chose waa Jambar Wrestling c' est la même chose. c' est à dire ñun defuñu pour association. defuñu pour kenn dañoo def pour monde pour euh, de la lutte monde de la lutte yëpp ñu fexe dajale leen. ñu xoolandoo li nga xam ne mooy jafe-jafe làmb ji ñu taxaw ci waxtaan ci. biñ koy def nag nañ ba ñëpp. waxtaanak ñoom pour ñu ñëw pour ñu doo xàccandoo dóorandoo mais malheureusement. Mhm. nit ki nag kenn du ko tànnal fi ngay dem ak ñi ngay àndal. Mhm. waaye ñun làmb moo ñu tax a ñu ñun amoon nañ journée comme ni nga ko waxee le 10 comme ni waa Jàmbaame le 11 Ibulaay ñu waroon a ñëw le 18. Mhm. noonu la tournée yi continué ñu ne nag ñun dootuñu permettre état vraiment ñuy dem ba dernier moment ñuy annulé suñu ay journée te duñ ko teg fenn ci lu leer. Covid bi mu ñëwee. ñu annulé journée yi kaasuñu. dañoo xam ne Covid la réew mi la impacté. kenn dara. mais lii du Covid. Mhm. ay cas personnel la wala ay ka mhm. yoo xam te ni nit ak nit la. Mhm. kon loolu tey ñun duñu permettre mu yàq ñu làmb ji nawetaan yi am football bi am. championnat Sénégal lépp di am. ñu ne làmb kese la ñaane mel ni làmb moo gën a nekk lu lu lu baaxul ci réew mi. te làmb nañ xam ne mbiru noobu la. Mhm. ay espoir di ci bëri ay jeunes di ci bëri boo xoolee tey comme ni ko grand yoo xam mhm. ne. huit journée ñaata litre ñoo ci war na bëri. Mhm. kenn mënu ko comprendre te ñoo ñëpp dañoo yaakaaraan pour jox seen waajur yi xaru tabaski. jënd soble jënd pomme de terre pour soutenir seen ay njaboot. ñoo ñëpp tey ñu xañ leen ko te li ko xañ mooy la état. kon nag il faut état na lay accompagner promoteurs yi pour subventionner leen pour jàppale leen promoteurs yi mën a dem subventionner mbëri jàppale leen mm. bu ko defee képp koo xam ne loru nga ci li nga ci loolu au moins dina ma xaw a wàññeeku tuuti mm. loolu moo nekkoon suñu point mm. beneen Euh, Silva euh, kii bi nga xam ne ni moom la président wa jàppale kii bi mm. Mm. loolu crédit la comme ni ñu ko waxee mm. ñu ngi ci waxtaan da ci def ay échange ak CNG am nañ yaakaar ne dinañ ci am loo xam ne satisfaction la ba nga xam ne lamb na ci gën a mën a suqaliko lamb gën ci mën a dox boppam ba nga xam ne ni continuité lay nekk lamb mën cee góorgóorlu ba nga xam ne ni état bu mën di ñëwaat it da am continuité boobu rek nga xam ne lamb na ci man a gis boppam promoteur yi nañ leen mën a jàppale ñu gën a mën a développé gën a mën a suqali ko ba nga xam ne pertement yi ñu doon def vraiment dootu métti ba pare seen alal yi ñu doon jël di ko investir dina wàññeeku ndax bu la bu la état lebalee benn som mm-hmm. nga boole ko ci li nga doon def benn xaaj rek di nga mën a couvrir li nga doon def léegi bu doon génne année bi cent millions di nga mën a génne cinquante millions wala vingt cinq millions yoo xam te ni moo la koy accompagner mm-hmm. su boobaa yow di nga a am yeneen business yoo xam di nga ko mën a def yu dul làmb te dina gën a mën a dox mm-hmm. loolu nag ñu yaatal bi troisième point bi mooy médical yi ñuy gis nga xam te ni ay médical tappale la vraiment affaire bi metti lool ci promoteurs yi dañuy jékki-jékki rek ñu leen di nañ certificat médical sama loolu nañ jël ay matuwaayam dañuy proposé nañ CNG ne leen léegi mbër bi dañuy jël ci kaseem vingt cinq pour cent wala wala vingt pour cent bii adversaire am lañ koy jox beneen partie bi ñu jox ko promoteur bi su ko defee yaakaar naa ñu médical yu bari na wàññeeku te yaakaar naa loolu intérêt lamb la te loolu du intérêt Fallou Ndiaye ndax li fi wax nii yëpp amul leen lu jëm ci poche Fallou wala mu jëm ci poche Grand Line wala mm. euh, grand bi jandeer mm. kon yaakaar naa lii am solo mooy ñu ànd suqali lamb ànd defaraat lamb ànd boole suñu ay force fexe ba état gën a reconnaître lamb gën koo jox gëddaam teewul nag ñu ngi commencé gis ne état mu ngi commencé dugg ci lamb di ko sentir mais dañoo bëgg état bu fi man di ñëwit mm-hmm. gën a sentir lamb gën koo jox gëdd bi mu nekk mais da fekk monde de la lutte mooy formateur yi ak monde la nekk benn mm-hmm. di xàccandoo di dorandoo c'est très important loo xam lamb kese lamb kese moo ci gis boppam ndax ñun li ñuy dox doxuñu ko pour dara dañ koy dox pour lamb kese mm-hmm. bu lamb pare suñu kër lañuy dem toog ne suñu ay business ndax lamb dundaluñu mais nag dañoo bëgg lamb gën a développé gën a suqaliku te lamb pour mu développé pour mu suqaliku promoteur yi lay jógee ndax promoteur yi ñooy bailleurs yi. tey bu amut CNG du am. Mhm. mbër du am menacé du am kenn du am dara. ndax li cool yi bari bari lépp luy am ci lamb promoteur da koy def. Mhm. mooy fay ñëpp mooy woo ñëpp. Mhm. kon nag ñooñu dafa jar ñu joxaat leen cër bi ñu moom. te dañoo gis ne cër bi dañ koo manqué trop. te ñun suñu position mooy ñu fexe ba promoteur. cër yu am ci lamb ñu jox ko ndax man toujours dama koy wax li saab fees yëpp benn nit moo koy organisé benn nit moo génne xaalis bi yëpp benn nit moo def yëpp te kooku lañ gën a ñàkkal fayda léegi ci làmb dafa jot nag ñooñu jëlaat seen gëdd seen taxawaay ñu xoolaat ko ba yëgal seen niveau yi foo xam te nii ñëpp nañ leen gën a joxaat cër gën leen jox respect mm. ndax yi gis léegi mooy am ci promoteurs yi neexuñu te ñu ngi koy metti kon nag dañuy mën du bokk nday bokk bàyyi jël boo suñu ay force ba nga xam ne ni promoteur cër bi moom na ko amaat am na solo loolu ëppoon naa bañ wax léegi nag euh, dañuy tëj ci Ibou Laye parce que xam nañ ne comme waa jàmbar production ak Ibulaay production benn la rek nga wax ci seen kàddu assurance ak ñuy taxaw taxawal fi jàmbar production dañ la nuyu rek bàyyi la nga nuyoo mbokk internet di borom la 18 bi nga xam ne mii <laughs> jëbul am waaw mu anta maa lay nuyu di la ziar xam nga comme ni nga ko waxee rek man ak jàmbaar benn la kon su ma waxee mel ne ni jàmbaar moo wax waaw le 18 bi nag moom xam nga tey mun naa ni euh, moo mën moo gën a tax sax tey taxawaay bi yëpp am te loolu tey maa ngi koy gërëmee promoteurs yëpp ñoom Alioune Gueye Fallou Ndiaye ñu dox ci ñu dox ci tànk ñu dox ci ay jéego yu yu am solo. parce que tey ñoom bu leen neexoon ñu ni vraiment Fallou boo neexoon mu ni tey làmb moom yàqu na bu yàgg yoonam nekku si. waaw kon moom ni mu yàqu loola le mais ñoom dañoo jël bis bi sax ñoom gën ma ko métti lu ñoom seen bopp xam nga. xam nga tax wax nañ ci lu ñu mën communiquer nañ si lu ñu mën parce que tey bis bi condition yi mu yàqoo wax dëgg yàlla ñoom wane nañu ni métti na axlu làmb yëpp. ba tey moo taxoon fan yëpp ñu ngi gisee ñu ngi toog ñu ngi réunion ñu ngi waxtaan. xam nga kon daal bu ba pour bañ a guddal ñun li ñuy wax rek mooy li ñoom Fallou wax ak gars yëpp wax mooy état nañu jàppale. Mm-hmm. dédommagé ñu ñu dimbale suñu mbër yi tamit dédommagé leen. te mm-hmm. mbër yi dañoo investir. Mm-hmm. dañoo def seen ay pexe xam nga lépp nañ ay xaalis. xam nga def seen promotion. def préparer seen combat ba mu toll foofu. mu jékki-jékki yàq noonu ci zéro kon il faut que tamit mu am benn taxawaay bu état taxaw ak ñun. ñu hmm. jàppale mbër yi ñun daal loolu am lu ñu ciy dolli am na solo saison bi. Hmm. kan la ñuy reprendre. ah loolu nag. Euh, waaw loolu loo xam ne dañuy dañu war dajewaat am na loolu dañ koy bàyyi ci loxo grand Alioune. non peut-être avant wala après mais en tout cas grand bi moom mooy coordinateur bi moom lépp lu si am rek dinañ def si incha allah. am na solo mbokk yi kon lii lañ fi jëlee woon incha allah rabbi fu mu mën di toll rek dinañ coordonné ki nga xam mooy. lin Production muy Aline Gueye di nit ku baax wax dëgg yàlla di nit koo xamante bi nii xeebalul kenn li nga xamante bi nii mooy taxawaayam wax dëgg yàlla lin xam rek lañ mën a seede ci moom parce que nit ku baax la grand bu baax la après affaire yi fu mu mën di toll rek incha allah dina leen ko andil toppal leen ko jox ko amateurs yi ak ñi nga xamante bi ni ñooy supporters yi mbokki di leen jox di daje rek ba beneen yoon incha allah rabbi jërëjëf